waaw oh, pour yow man. pour mu ne woy rek man la. ah ndax ah, yow ah. ma xalaat rek. Hmm. xalaat rek. Hmm, ok. and ñu ngi gis concept by Cess Ngom. Hmm. like sa si yëpp concept bi yow la dina ko oo. waaw man la dina because artiste bu nekk ya xam li nga woy. so from li la woyloo. man loolu laa dee jéema ni nit xam li nga jéema. ok léegi yow soo dee soo dee xalaat pour shoot vidéo. fan nga jëlé inspiration like example ngay bi bang ko do shoot lan nga si mm-hmm. lan nga si halal lan nga wax ni ok li ak li ak li la ci bëgga mm-hmm. right comme yëfi genta la yëfi jine la mm-hmm. mo waral ma jël um, fan si géej bi di joomale waaw way na geej gogu daanu na fa mohammed daanu na fa <laughs> liñ daj ka rek si gudi gogu sani mente rek nañ dem te yow jini ah way nak du ca dalati du <laughs> xewati kerak liñ gis <laughs> Euh, nice ah, video yaa ñu dellu si waat rek mm-hmm. lifin bi euh, foo rek song bi Nova Nova mm-hmm. line bi dafa di best mm-hmm. waaw ah. man mun naa ne Nova bokk na ci ñi tax ni mm, ñu gën maa because Dream Boy bi ma amin ladies reading bi maa ko start loolu rek dara la maa ci gërëm bu baax baax ku baax la suma brother bu baax la mm. ku xam li moo def. macha allah di kontaan si Nova bu baax a baax a baax. di dina ñëw nag de. incha allah waaw fa ma toogee moom foog mu ñëw ah, fii Nova foog ma waxtaan nag ba Iba Nova face to face ah loolu easy. <laughs> easy moom. waaw waaye lu xew mooy ne xam nga tuñ time bi waaye lu ñuy def mooy ne ah, dama leen amal surprise bu mag a mag a a mm-hmm. parce que sees daf lay joomale soo ñu àndaa bi ñu seet ñun ñëpp ñu joomee rek waaw suñ ko rek ñu xam ne ñooy def <laughs> ñu àndaa suñ vidéo bi suñ dellu seet rek ñu continuer Look for my dingerechu, yeah. This crazy war we love so much could leave us any day. Sing to Lincoln, it's gonna come one day. Look for my dingerechu.

any day. It's gonna come one day. Look for my eating that you. I was wowed. Like, I was like, wow. Thank you. am nga lay I dañ war a i am na artiste bu hmm? artiste bu mag bu Musa wax ne waaw woy I diglewut eetewut mm-hmm. kon ay naxaate la woy bin like mm. ñu def ko nii rek su la neexee mu nga xam ne neexut waaw and says wax dëgg i am na baat bi mm-hmm. uh, she's creative mm-hmm. and mu woy loo xam ne nit mën nañ rek laa la bëgg a laaj safara boobu fan la. safara si ah. i eh boy tiital de. Hmm. damaa fàttali ko suma boppa mm-hmm. waaw eh, li yàlla santaane mooy ñu maandu. neexu na yombut. Mm-hmm. léegi léegi ñu caare. Mm-hmm. doo cangale yooyu maa yow ankay waaw waaye ci la bokka. Ah. ci la bokka kay sometimes ñu baax awteeg yooyu waaye di jégalu waaw. Ah, waaw. daal lim umba bari waaw ah, ku ci nekk daal fu mu la yóbbu rek. mu mm. ngi loolu waaw maandu dafa yaatu waaye dafa dañu am benn rek la jël. bi ko ah, time bi lu fa des ñu jël kola bi rek. Mm-hmm. sa yi lañ allo kola allo. allo. yaa hello. Ya, ya, na ngeen def. na ngeen nii na nga tudd Faye Kole. kan suñu lay Diallo laa ok yaa ngi ci biir labu gara diwnudu rek mu ngi rek allo Ramatoulaye sës dam la ubala lay sax ay eh, waay jërëjëf Ramatoulaye kontaan naa ci yow sama yi dañ ma ne jërëjëf ay eh, waay kontaan naa dégg nga isan iya, kan ah, di mhm. kontaan si moom bu baax a si façon waaw waaw li dal i boy moy lolu feeling bi ken mënu ko explain demba rek ci show yi jémba bi nga am ko ñew di joy téye ma benn five minutes si jooy loolu dafa doy wa mhm. ciaré maa leen a gërëm man doo leen joy lo tay duma ko sax nangu <laughs> xam nga té duñ nangu lolu légui té xana naka la ñoo def hmm? nañ wax gaay liñ bëgg xam rek hmm. kan moy ses hmm. amna yoma baña wax nak maa ko wax diko wax rek ses amna yoma ses ses bañ a wax xam leen yu bon man nga gëna mëna toga tooga waaw iwe dama mën a tooga a xam na ne daal soo toogee moom déedéet uyu ma xam na tàgguma suma boppa du ma koy sax gaaw a def waaye dama a a ma tegal rek dañ la tegal rek suma daaneel waaye ok ban lekk nga gën a bëgg ok man domodaa domodaa moo laa rey bu ma buggee yaaxa rek defal ci biir domodaa bi jox ma ko I will anywhere lekk nga ko ak yéet hmm. yéet bi nag hmm. ta tax ma sawar trop ay kanja bu ko kanjare yaa xama ok c'est mm-hmm. si musique carrière am kañ la si kañ la toog ne tey bis bii moom bii mm-hmm. mooy last trop bii damaa bàyyi lii duma ko mun I cannot do this